sëñ bi euh, Deme Amadou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yaay secrétaire général syndicat des travailleurs de la poste de Sud Poste ngeen euh, xëy talaata bi daje ak taskatu xibaar yi fësal ne poste ay jafe-jafe yu rëy lay jànkonteel fi mu nekk te li ko ko teg bokk na ci det euh, dibor bi nga xam ne mi ngi toll ci juróom-ñett fukk ak ñett ci milliards nguur gi amee leen ko ndax tey mën nga ñoo wax situation poste fu mu toll. waaw li ma dama lay gërëm d'abord et puis leeral ni donc man maa jiite FIPOS nekk tey bi may wax également dama wax ci turu donc FINAPOS nga xam ne sama mag Pape Momar Diop moo ko jiite wax ci turu SNTP bi Ahmed Diouf jiite wax ci turu syndicat libre du groupe La Poste SLGP jiite ak ci turu SINAP bi nga xam ne moom la ji bi sama di jiite. wala dafay faral di wax ne xoddee ko ca ba nga lekkaleekut. Mm. waaw parce que jàpp nañ nii am na euh, suñu relation am nguur gi. donc buñ ci jëlul matukaay am na yaakaar ne fa mu jëm donc du jur jàmm pour kër gi du jur jàmm. pour postier du jur jàmm également sax pour sénégalais waa wala même pour nguur gi parce que réeréwu leen bi nekk mais poste am na rôle bu important service public boo xam ne poste mu ngi koy joué parce que gox ak gox goxaan yi gi gën a sori Sénégal boo demee di nga fa fekk bureau de poste. Mm. li ci nekk mooy léeg-léeg bureau bi. boo xoolee li ci courant boo xoolee li ci salaire u liggéeykat ya fa nekk ak yëpp boo ko xayma daanaka bureau bi bu weer dee la muy liggéey du sax mun a feeñ mais dañ fa war a nekk parce que sénégalais yi dëkk foofu ci dëkk yu sori yooyu gox goxaan yooyu dañoo am les mêmes droits que ñu nekk Dakar wala Kaolack wala Saint-Louis léegi nag manque à gagner boobu ñuy am ci bureau yooyu dafa dem ba nasaxal suñu bopp nguur gi nag pour dimbale ñu daf ñu jox li nga xam ne moom la tubaab naan rémunération service public ñu xayma ko ci benn milliard donc ak ñetti téeméeri millions 1985 ba ñu tàggoo ak Sonatel jamonoy OPT ba léegi année balkanisation bi ba suñu jonn yàlla tey jii un milliard trois cent lañ ñu jox ci ndàmpaay mais di nga ma nangul ne mm. un milliard trois cent donc dayoo ba mu amoon ca 1985 bokkul ak dayoo bi nga xam ne moom la am donc en 2020 mm-hmm. li ci nekk aussi mu gën ñoo métti mooy que juróom-ñaari at yi ñu wees lim ñu jox doyul ñu ngi waxtaan pour yokk ko waaye lam ñuy jox doyul sax waaye joxatuñu ko. Hmm. parce que juróom-ñaari at yi ñu génn juróomi at yi yi njëkk donc un milliard trois cent léegi waroon a fay waaye duggul boo ko xaymaa ci juróomi at yi donc muy juróom benn milliard ak donc juróomi téeméeri million yoo xam ne duggul alors ñaari at yu bees yi ci juróom-ñaari at yi mooy ñaari at yi donc deux mille dix-huit deux mille dix-sept deux mille dix-neuf ak deux mille huit bi six milliards quatre cent la ñu woon parce que état bi yokkoon na ko di xaar nag loo xam ne moom la ñu sasoon pour ñu yokk def ko douze milliards wala treize milliards parce que jàpp nañ ne montant boobu dafa dëppatul jamono waaye ñaari at yu wees muy six milliards quatre mais boo ko boo ko calculer muy daanaka ñaari fukki milliards yoo xam ne nguur gi mu amel ci li ñu tuddee rémunération territoriale mooy ndampaay nga xam ne moom la ñu war a jox beneen bi nga xam ne également dañ ci waxte mu métti ñu mooy bourse sociale yi nga xam ne moom la ñuy dimbalee néew di doole li ci réew mi def di fay nguur dugal xaalis poste fer nguur dugal xaalis mu dem ba toll ci 43 milliards ñu jàpp ne nag ñaar fukki milliards ak 43 milliards ak euh, ñeent fukki milliards ak ñett hmm. muy juróom benn fukki milliards ak ñett mais buñ ci waxul loo xam ne lebuñ ko ñaanuñ ko yalwaanuñ ko ñoo ko moom sëñ bi nag nit ki boo ko defaratul boo ko meetul nga jox ko li moom d'accord est-ce que est bi dafa am njeexital xëy na ci liggéeykat yi ndax dañu leen ameel xaalis wala yu demee noonu. non non liggéeykat yi ñu ngi sant yàlla ñu ngi feeku seen i seen i salaire loolu aussi dama koy wax pour dalal. donc xelu sénégalais yi ak suñu xelu clients yi ak partenaires yi. aucunement loolu amul benn jeexital ci suñuy payoor wala ci ci ci li gi doxee mais dañu xam ne buñ ko bàyyee muy wéy kanam am nañ yaakaar ne ragal na fa lañ jëm dana xollee ko comme ko waxee léegi balaa ngaa lakkale balaa ñu fa yegg donc ci la vraiment artu parce que li raam ci ñag bi la jëm bëgguñu mu yegg ci ñag parce que bu ko xasee dëkk ji ne jafe loolu bokk na ci li nga xam ne moom moo tax ñu woote mbir li nga xam ne également jàpp nañ ne que daf ñu andi jafe-jafe parce que dañ daan dem compense compense nañ ko mën a waxee mooy donc dañuy daje poste dina amel banque banque amel poste daanaka poste amel station d'essence wala poste amel compagnie d'électricité bu ñu dajee foofu ñu ñu xayma ku nekk li nga amel sa morom. Hmm. bu njëkk donc trésor moo ñu doon demal waaye léegi poste finance moo ñuy demal fukki fan bu jot la loolu doon am waaye xam nga bu ñu demee fukki fan ba nga andi ko ci bés bu ne ngay dem compense mais nguur gi jàpp naa ne que mesure yu mu waroon dimbale poste yëpp dara ñor ko ci li ci ñor mooy loolu nga xam ne dafa dafa nasaxal suñ koom-koom parce que bu demee ba chaque jour ñu ne ñu ñëw leen donc fay mais ku jafe-jafe andi pour nga jàppale ma pour ma suqaleku pour ma yokku pour ma defoo ko damay gën a sama koom-koom ñu léegi poste yaa ngi wax ne am na ci ay bureau yoo xam ne daanaka da ngeen di euh, liggéey ni rek waaye amu leen fa dara euh, daanaka sax euh, xëy na ay bor ngeen fay jëlee muy ngeen di rouler à perte situation boobu lan moo ko waral. waaw li waral mooy. Euh, so nekk xam nga man te wala man yow mi boo doon ubbi dee sa entreprise balaa nga dugg ci dara di nga def enquête donc environnement xool lii may dugg. ndax dina dox ndax fa ma koy def am na ñu fa ne ña fa ñan lañ. Mhm. ndax am na population boo xam ne danañ ko jënd mais nit foog nga def enquête. Mhm. poste amul droit boobu parce que service public la. Sénégalais fu mu ne dafa am droit donc ci joon lettre dafa am droit ci feeku mandaam donc dafa am droit service yi nga xam ne moom la poste yi joxe Sénégalais service public dañ ko war a waaw dañ ko waaw sañ sa bañ nag nangooy ndeyam loolu u mbir mi mhm. léegi nag loolu ñu ñàkk état daf ñoo jox ndàmpaay pour ñàkk boobu ñu ñàkk ci bureau yooyu boo leen dajale boobu bañ ñoo gaañ mhm. ndàmpaay boobu moo ñëwutut non seulement motut waaye ñëwutut loolu mooy loolu mooy mbir mi. d'accord est-ce que tamit euh, poste jafe-jafeem bu gën am solo bàyyeekoowul ci concurrence bi nga gis nañ transfert d'argent yi gën nañu bari courrier yi nga xam ne aussi euh, moom moo gënoon na fës ci seen liggéey daanaka nit ñi yo soxlaatuñ ko ndax nouvelle technologie de l'information et de la communication léegi ko bëgg a waxal euh, ci ay simili nga jokkoog moom soxlatul lettre est-ce que tam seen jafe-jafe jugewul foofu. waaw jafe-jafe yi bëri na daan jot tonnu lettre yombut yomb téeméeri kilo la ñuy jot parce que nit ñi amatuñu réflexe bindu lettre mhm. léegi jokkoo bi dafa gën a gaaw ba nga xam ne nit ñi soxlaatuñu sax bindu lettre wax ak jokk ak seen i mbokk mhm. li nga xam bi donc dafa impacté effectivement donc li nga xam ne flux bi ñu amoon donc ci dafa wàññeeku beneen bi nga xam ne également wàññeeku na euh, soppeeku na mooy jikko yi moo soppeeku mhm. dinañ dem ci ay jamono nit du amati poste ci kafakam lépp ci donc ci carte la koy am. donc fu muy dem ci moom lay fay léegi boo demee nekk ci dëkk européen daanaka loolu mu nekk. Mhm. ba nga xam ne foofu également poste xam ne que foog mu changé foog mu adapté wu. moo tax ñu ànd suñu carte poste cash. jàpp nañ ne également caisse d'épargne ci suñu cœur de métier la bokkoon ak courrier bi. Mhm. courrier bi agressé non seulement li doon li ñu def ci courrier néew na. waaye dafa loo xam ne monopole bu poste moomoon la maanaam ko moomoon kenn amul droit distribué ko. pour tourner yaa ngi dajeeg moto bu la romb boo xam ne mu nga. càq-càq mandargaam waaw càq-càq yi ñëpp ngi gis loolu également dafa dem ba ba sonal ñu. xanaa secteur bi amul dara lu koy réglementé. non li koy réglementé euh, nguur gi la war a doon parce que ARTP moo ko réglementé. malheureusement. dañoo seetaan donc donc dañoo seetaan donc àtte wu ñu xeex. donc dañoo seetaan. société publique boo xam ne daanaka euh, depuis mille huit cent et quelque mu ngi fi ba léegi mooy du ñu di jooy parce que moo di dañ am ay soxla yu bees. dañ am ay yéen a ngi jéem a méngoog jamono. ñu jàmm ne foog ñu jéem a méngoog jamono. d'accord foog qu'on soit à l'air du temps. moo tax ñun tamit tooguñ na sax toog di seetaan. yéen a ngi def ne ñeneen ñi. voilà <laughs> waa ko jéem a ànd transfert d'argent yi. léegi bokkuloon ci ñun. donc mhm. carte poche cash yi bokkuloon ci ñun. waaw bon kenn defaat yi aussi jàpp bi ubbi compte. daanaka bu doon moom rek ak jabaram ak doomam ñooy ñooy dundee salaire mhm. mais famille famille modèle bi ñu am. donc tante jeeg papa jeeg ku ne da ci bokk nit également léegi bu ubbi compte bancaire dafay bokk ëllëg enseignant bu njëkk poste mm-hmm. lañ yi tamit waaw yaa ngi wax sànq ne bokk ci li leen lor da di fayal nguur gi te du leen delloo dañ di fayal du delloo donc mu dem nag ba bi toll ci ñeent fukki milliards ak ñett dafa jéggi dayoo mm-hmm. parce que ci yoon bon nit ki ko feel war na la mën a jox xaalis nga la ko feel

waaw dafa am wax joo xam ne ki koy wax mu sori poste mun naa ko ko nangul parce que dafa xamul dina ci biir kër gi. war a maan mais ñun ñi nga xam ne man syndicaliste la man man dara feetul sama bët yàlla doo ngay tax ma wax. li ma ñor mooy euh, donc koom-koomu euh, payooru liggéeykat bi yokku li ma ñor également mooy def euh, pexe moo xam ne ëllëg dina mën a dëgëral suñu suñu liggéey. donc Siré bokk na ci directeur yi nga xam ne directeur général poste yi nga xam ne daanaka lam fi def. mu am jeexital ci liggéey kat bi daanaka néew na directeur boo boo ko fi def booy xool ku ci mel ni la Lamine Thior am lu bëri lu mu def ci kër gi waaye firi fa mu fa mu yóbbu liggéeykat bi amul benn DG bu ko fi yóbbu lim ñu ko def mooy d'abord bureau poste yi dañoo am catégorie maanaam fii la ñuy yem bureau Passy biro bureau Niodior bureau Tamba dafa dafa fu ñu yem ba mu ñëwee bureau bu ne fa nga fa nga nekkoon yokk na la ca beneen grade dafa jàpp ne receveur bi mooy dem dënd mooy dem dëkk mooy dem sëy moom la ñu parrainage donc mooy ambassadeur u kër gi war ko seetaan mu ne def dana i seen i grade liggéeykat bu ne aussi ci kër gi dafa yokk sa grade muy au central muy au niveau des am na centre yoo xam ne yi su ma déggee jàngalekat yi di wax quatre-vingt mille ñu koy xeeb man sax dama doon jàpp parce que ci gën a néew poste ñeenti junni la amoon hmm? mais ci ne moo leen yokkal yóbbu leen mais 45 loolu nekk xaalis boo ko xaymaa ci masse salariale bi muy 1 milliard kooku nag boo ko defee liggéeykat boo dee as gor doo suul jëf. li ma jàpp mooy ña koy wax jëlee def assumer leur propos mais ñun ñu ngi biir kër gi. jëri wax dëgg yàlla li mu def ci kër gi DG yu bëri jaar nañ fi ne defuñ ko xam ne ñoom la liggéeykat yi moo gën a digg di dimbale liggéeykat yi moo mhm. bi Abdoulaye Bibi Baldé aussi bi mu ñëwee am na lu bëri lu mu euh, annoncé woon comme ay mesures ngir xën a gën a taxawu kër geek liggéeykat yi ndax euh, moom itam am na lu mu def lu ñu mën a teg bët waaw li ñuy li ñuy rafetlu d'abord ba mu ñëwee mooy bi njëkk ñoo dafa dajeek directeur am yi dix heures midi mu dajeek syndicat yi kooku am na lu mu lu mu junj. donc mooy gëm na dialogue social mooy gëm na partage. ñun ay partenaires ñun ñooy courant transmission entre euh, Ablaye Djibi Baldé ak liggéeykat bi. ndox nañu suñu gëdd. ñaareel bi mu initié ay tournée ci direction régionale de yëpp. fu muy dem nga bëgg nga bañ a bëgg dalee ñoo di ànd ak yow parce que li may xam dama bëgg nga xam ba li may dégg nga xam ne kër gi man loo ma teg te mënu ma ko nga xam ne mënu ma ko loo ma teg nga xam ne mën n ko nga xam ne maa naa wax ne ci xayma ci mandarga daal poste dafa mel ni crâne bopp xam ne vert la nëbbul dara nga xam ne également def na ko ñu rafetlu ko mooy commission yëpp yi mu créé yi nga xam ne dafay am njeexital ci kër gi ak liggéeykat yi daf ci boole donc ñi nga xam ne ñoo toogal liggéeykat yi muy syndicat yi kooku ñu koy rafetlu muy plan stratégique bi muy transformation de poste finance en banque ak lépp ñu koy rafetlu mais li ma jàpp mooy nekkoon na suñu ministre xale la jàng na am na xam-xam am na yéene aussi mais bu ko nguur gi jàppalewul li mu bëgg ñu bëgg ko duñ ko parce que quel que soit par ailleurs li ñu bëgg kër gi mais bu nguur gi dugal loxoom lim ñu amee amel mu fay ñu donc def ay mesures d' accompagnement ci compagne bi nga xam ne moom la ñu teg par force buñ ko deful mais li ñu bëgg wala moom mu bëgg ko duñ ko matal. loolu wax ngeen ne justement bu ñu leen fayul xeex bi dina gën a tar ndax da ngeen am àpp gu ngeen jox kilifa yi. waaw xam nga yónnee nañ d' abord donc ay bataaxal njiitu réew mi yónnee nañ bataaxal ki nga xam ne mooy suñu kilifa ci nguur gi mooy ministre des postes. yónnee nañ bataaxal également ki nga xam ne mooy ministre des finances ñu ngi xaar nag ak également donc bu am dara joon ñu ngi xaar ñu tontu am nañ yaakaar nag dañu tontu bu fekkee nag gis nañ que ne tontuwuñu et que malgré suñu point de presse malgré ñuy bataaxal yi ngeen yónnee pour audience tontuwuñu fulaalul ñu mais wax dëgg yàlla nag euh, euh, balaa ñu ñoo rendi danañ mel ne ay béy ku ne dañu dikk nañ koy defee nag. ak dinañ xeexit bu ñu xeexit danañ ko def du ñu def kooku danañ ko xayma après ak liggéeykat yi xam nañ ko wax beneen jafe-jafe aussi euh, mooy kaaraange gi euh, ñu fàttaliku cong gi amoon ci ba benn gendarme mu ñàkkoon ci bakkanam ndax euh, boobu am na saafara tey waaw kaaraange gi duñ ne guleet parce que effectivement ni ko waxee lu métti mooy dal seen kaw léegi bu mujj bi sëriñ bi bi balde demoon na Koungheul donc masawu leen kaaraange gi du duñ ne parce que yàgg na am ci réew mi booy xool insécurité bi ne ci réew mi léegi ak vol bétail ak agressivité yi xew ci jamono léegi dafa xaw doy waar loolu la ñu xamoon ñun ba ñu ne pour que ñu mën a aar suñu liggéeykat yi surtout receveur bi nga xam ne moom mooy amee caabi coffre for bi nañ leen génne ci bureau yi wutal leen fu ñuy luwee ci biir dëkk yi nga xam ne fa lañ ne receveur yëpp daanaka génn nañ seen bureau yi donc ñu luwee leen ci dëkk parce que nit ki nag boo ko fekkee biir këram jàpp ko war ko ñoddi yóbbu ko ci bureau ko la gis dana am ku loolu lañ jàpp waaye nag gardien effectivement ñu ngi ci bureau ba lé samba bo yi nga xam ne ño ko def aussi xamuñ ne gardien mënu ubbi koofu amul coofu koofu caabi koofu ñoom xamuñ koofu aussi ni ñu ko defee mënu ko dajji waaye léeg-léeg gardien aussi dañuy exposé donc nag ñu ngi ñu ci waxtaan plan stratégique bi nga xam ne moom lañ defaloon lël donc weekend bi ci Saly ñu ngi xool nu ñu waxtaanee mu intégré donc toutes ces problématiques là ba nga xam ne donc dina kaaraange gi dina yokk bu jaree sax ëllëg signé une convention wala un contrat ak société gardiennage professionnel yi nga signé kook ñoom donc pour que li nga xam ne moo xëy Koungheul xew gul mi jamono di wees donc muy situation yu métti donc bañ a daloon ko wala mu dal ci ko liggéeykat yi Amadou Deme ñu ngi lay gërëm fàttali ni yow yaay secrétaire général syndicat des travailleurs de la poste maa lay gërëm di la sant